Monsieur le ministre du Budget, Monsieur le ministre du Travail, en charge des relations avec les institutions, mes chers collègues honorables députés, Manginu également les Sénégalais de la diaspora, particulièrement ceux de l'Europe du Nord, de l'Ouest et du Centre. Monsieur le ministre, le marathon budgétaire tire à sa fin. Je peux même dire que c'est la fin. Mais il faut que aussi ñu wax sénégalais yi problème bi nga xam ne moo nekk ci budget bi parce que bëgguñu ëllëg ñu naan ñu député yéen fi voté woon 7000 milliards mais loolu gisuñu ko d'ailleurs j'ai l'habitude de dire que c'est la maladie des chiffres qui traverse le régime du président Macky à chaque fois vous nous dites qu'on a injecté autant de milliards mais il faut se rendre compte à l'évidence que les Sénégalais sont fatigués monsieur le ministre du budget les Sénégalais sont très fatigués et je pense qu'il faudra dans les trois mois qui vous restent trouver des solutions à problème-là leneen li ci des mooy nee naa leen le budget ne fait pas sept mille milliards parce que man mësuma gis en tout cas ñun li ñuy jàngal ci économie les ressources de trésorerie mënuñu ko considérer comme des ressources budgétaires te boo xoolee biir budget bi da ngeen a jël plus de deux mille milliards ci ay ressources de trésorerie boole ko ci comment dirais-je pour gonfler ce chiffre là loolu ça pose problème leneen li mooy la manière dont vous avez bâti ce, ce budget là pose problème parce que croissance bi prévision yi ngeen amoon c'était dix pour cent ak gu ñu dafa daanu le PIB qui s'élevait à mille dix neuf mille milliards ci base boobu ci 2003 moom ngeen conservé pour comment calculer ce comment dirais-je comment suñu taux de croissance ça pose problème monsieur le ministre je je sais que vous êtes un homme compétent vous êtes un homme franchement qui qui maîtrise les arcanes du du du du budget mais je pense que dañ lay defloo politique te loolu waroo koo nangu leneen li ci des nag moo ku ne ngi taxaw naan mon candidat mon candidat mon candidat am na ko fi taxaw démb di xas suñu candidat Karim Wade ñun nag ñu xastante parce que dama ni ñun sénégalais yi duñu nangu cette élection là kenn duñu dugal ci ay débat yu ñàkk fulla cette élection là doit se gagner sur la base d'un programme et notre candidat c'est le candidat des trois bons P ñetti yu baax yi le parcours le projet le profil loolu ku ko amul je pense que waroo bokk ci kii bi ñeneen ñi ngi nag waa neex a dëkkal ñoom xam nañ seen candidat mooy borom borom ñetti i yu bon yi sa incolore inodore et impopulaire fu ñu jëm bokk ko di ko yóbbu mu mel ni xale bi ñuy euh, dab di ko def ay kii ba pare ñu bëgg ñoo taxaw di ñu xas loolu duñ ko nangu leneen li ci des mooy monsieur le ministre la diaspora la diaspora nee naa leen li muy def ci économie Sénégal amul benn sénégalais wala benn bailleur de fonds bu ko fiy def mais gis nañu depuis que le président Macky Sall est là dafa jël la ah, nous sommes ni même les parias de la République mais qu'est-ce qui se passe ñun bu famille yi taxawee ñun la bu famille yi baaxee ñun la bu jàmm amee Sénégal ñun la kon nañ ñu xoolaat jox ñu li nga xam ne moom la ñu yelloo